ñu nekk ci ginnaaw fii déjà yéen yéen ëpp ñu nekk fii fi ngeen nekk ci ginnaaw daanaka fesalu leen manifestation bi dañ leen di ñaan ngeen rejoindre la foule parce que loolu defe naa moom moo ñu fi indi ñun ñëpp s'il vous plaît nekk ci ginnaaw bu ngeen ñëw mën a dimbali ngeen dem ngeen rejoindre la foule li may mujjee wax mooy lan li may mujjee wax mooy lan dañu bëgg ñu fi teew ñëpp ñu xam ne c'est le M2D qui organise xam ngeen lan mooy m 2 mooy ces voyants leaders ci sont là tous taxaw xeex pour la démocratie dama leen di ñaan ngeen célébrer leen ñoom kese dama leen di ñaan sax su ma nee nekk su ma nee nekk su ma nee nekk M2D m MDD MDD MDD léegi léegi léegi léegi léegi léegi ma ñaan leen beneen affaire su ngeen ñu ko mayee su ñu ko mayee li ngeen bëgg dina am 2024 est-ce que di ngeen ma ko may li leen di ñaan mooy fii ba manifestation bi di jeex président nga jéggal ma bu kenn tuddati turu président Ousmane Sonko tudd leen les noms des leaders qui sont ici 2024 yéen a ma ko mayoon kon jeex na voilà merci libérez les otages libérez libérez les otages libérez bon on va donner la parole à Simon qui va prendre la parole au nom du mouvement euh, Yanamar ñu profité ci tribune bi di exiger la libération de notre camarade Kilifeu et que ni ko yenn leaders yi waxee tey ci suba bu ñu jógee fii bu nee dañoo placé si euh, euh, Kilifeu mandat de dépôt manifestation bi di ñëw Kaolack lay doon parce que que Sénégal amul foo xamante ni dañuy aaye ay maréew di fa dem ay citoyen di fa dem du ñu ko nangu comme préfet Kaolack bi nee na moom tant que mi ngi nekk préfet kenn du fa manifester dinañ dem ba Kaolack organiser fa ngandi manifestation ñu jox parole suñu camarade Simon. waaw salaamaaleykum tout le monde. ñu ngi demee ko ci ko ci turam ak santam. gars ci manifestation bi ñu ci rassemblement. gars yi ñu ngi laajte ne te dëgëral on n'est pas fatigué on n'est pas fatigué dégg nga on n'est pas fatigué on n'est pas fatigué takk leen seen bopp encore une fois s'il vous plaît le message que je vais lancer mooy président Macky Sall président Macky Sall président Macky Sall 2011 fii nga nekkoon ak ñun gàddu sa mer gàddu di xeex naan gu fi nekkoon lu muy defalee ba sa nguur def na gën est-ce que di nga xoolaat sa bopp ci seetu et fier ci sa bopp président Macky Sall y des promesses yi nga defoon mooy tous les otages politiques seront libérés ce n'est pas normal aujourd'hui que jeunes quatre jeunes de Diourbel quatre jeunes de Ziguinchor soit toujours en prison alors que da nga joxoon sa kàddu kilifa diine nga jox sa kàddu kilifa aada société civile nga di nga tous les étages politiques defoo ko libérer les otages libérer libérer libérer je suis là pour représenter aujourd'hui le mouvement Y'en a marre ñoom Aliou Sané ak ñoom Thiat ñu ngi pour teewal kilifa suñ ko bàyyiwul suñ ko bàyyiwul la prochaine manifestation aura lieu à Kaolack le droit de marche kenn mënu ko bafoué fii ci Sénégal le droit de marche kenn mënu ko bafoué fii ci Sénégal le droit de marche kenn mënu ko bafoué fii ci Sénégal honneur au peuple digne merci beaucoup del déglu del xool